ñaan yalla rek ba ñu fax lu ñuy xébé sénégalais yi dégguñu dégg dégguñu ba paré comprendre en réalité parce que mën nga dégg té do comprendre mais nga dégguñu comprendre ñu euh, c'est très important euh, bu ñu jugee di wax rek ñun ku nekk xam nga ni duñu ñuy waxantu quoi té du jël ay information yo xam dañ koy jël ñi rek xam nga di wax noonu commencé expliquer wala ñuy dégg ku nekk di wax rek ñu top ci di wax déedéet parce que dafa am bénn bés benn benn benn imam du imam mais kilifa bu mag la ci dëkk bi kilifa bu mag a mag a la ci dëkk bi romb na sax imaam suñu imaam moo gën a kawe donc imaam laa mën a wax mu woo ma téléphone ne ma Abdou Karim man dama lay déglu quoi dama lay déglu te li tax ñu lay déglu mooy am yaakaar ni yow nekk nga ndaw buy xeexal diine am yaakaar ni yow nekk nga ko xam ni amal nga njëriñ Sénégal man dama lay déglu man nag bul musa wax ni man maa ngi lay déglu loolu nag dafa maa daf ma choqué quoi daf ma choqué mu ne ñoom bokk na mu ne ñu bokk nañ si liy tax ba mu mu xam yu bari ndax diine bi la doon toppee ñun diine lañ doon toppee mu dem ba mujj gi politique bi intéressé ko quoi te bul bëri ñu bari bari mel nañ ci nonu di suivre ba am accès si yooyu tiitaroo wuñ ko mais dañ koy sant yalla mais di wax ni motax buñuy wax même bu dul ñooñu suñu digëté suñu borom dañuy sóoraale bu baax li wax lan la dama ñëw tay pour wax ci affaire Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ak Macky Sall ak dossier bi nga xam mooy dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko li xew li état du Sénégal nek di def c'est-à-dire ñun suñu position man dafa am yu am solo yo xam il faut ñu d'abord ñu préciser ko ñu xam ko mo xam leer man Abdou Karim Gueye la tuddu Gueye la sant lébu laa sama juróom-ñaari maam ndakaaru lañ dëkk buñ sore ba sori tëngeet la sama maam yëpp ñu ngi fi ñu suul armée lu yoof mbelelaan gi waxuma waxuma yoof bële de bu mag bi de mbelelaan gii nii ci biir mbelelaan gii nii nga xam wetu njuufeen gii armée bii fa lañ denc sama maam yëpp cest à ñun man 100 pour cent Dakar Dakar waa la 100 pour cent Dakar lébu Dakar waa Abdou Karim Gueye laa tudd c'est am yoo xam ne foo mu leer santuma Sonko santuma Badji dëkkuma ci sud bi sari il faut ñu d'abord ñu léral bop Sénégalais ak kilifa yi ñuy déglu wax leen lan mo waral ñun ndaw Sénégal ñu wara a jug dañuy jakkalo état du Sénégal ci injustice bi mu bëgg teg président Ousmane Sonko. ñu wax ko mu leer ñu expliquer ko ñëpp xam ko ñu détailler ko wax ci benn par benn parce que fam ay kilifa yu ñuy seetaan yo xamanteni ñom ñoom en réalité yu bare bare buñ ko xamé rek li tax ñu xam ko moy parce que Sénégal xamuñu euh, euh Sénégal xamuñu né ñu ci bari hein ñun ñi ngi wax ni rek.

ñu wax leen ñun man man man par exemple man je suis un activiste activiste waxuma liveur de man duma liveur nekkuma Canada nekkuma France nekkuma Italie nekkuma États-Unis duma liveur activiste là, bu nek Ndakaaru dëkk fi Dakar ni fi medina bop yof di dem di ñew bu dara xewé may wacc dox ci mbedd bi dem xeex ko ci mbedd bi dem wacc taxaw bu laajee légui légui dem place de l'indépendance damay dem place de l'indépendance comme bu ko laajee buntu palais comme feneen ak feneen c'est-à-dire man duma liveur activiste là, bu am nous avons plus de mouvement bu quelques tout Nous plus de 300 et quelques membres suñu bureau rek mat nañ Voilà wala donc li ma bëgg indi parce que détails il faut expliquer ko affaire Ousmane Sonko président Sonko moo may wax c'est très important dafa am solo nous. wax ku xamuñu de qui fait quoi tout le monde en parle Nous ngi wax nous di wax convoqué nangam am arrestation am convocation dafa am arrestation am convocation Macky Sall Macky Sall mo djéki djéki après sorti Ousmane Sonko bi mu né nañ arrêter Ousmane Sonko coûte que lolu moy li am Macky Sall mo né il faut ñu arrêter Ousmane Sonko quoi mom mo bëgg arrêter Ousmane Sonko mom comme ni ngi koy waxé chaque jour nañ leen état du Sénégal ni ñu état du Sénégal mom li tax mu bëgg arrêter Ousmane Sonko Macky Sall ni état du Sénégal di piétiner ci justice bi piétiner manam euh, gérer législatif bi euh, euh, pouvoir exécutif pouvoir législatif législatif ak judiciaire mu gérer yoyep yëpp ni ko Macky Sall gérer ni mu jëlé justice bi daf ko xaju kërëm jël justice bi diko manipuler diko instrumentaliser pour xeex ay adversaire politique que dossier Adji Sarr dossier politique la que lii nii c'est politique lolu loolu ñëpp xam nañ ko ñun xam nañ ni Ousmane Sonko dafa jël engagement né dafa ñëw taxaw pour jëlé fi képp ko xam ni impérialiste nga képp ko xam da ngay noot Sénégal di ko dundee rawatina France entreprise française yi fi nekkat taxali ko France CFA yooyu chaque jour ñu expliqué ko xam ngeen ko que li révolution la c'est une révolution il faut ñu détailler ko ñu ñew ci benn par benn ngeen comprendre ko engagement yoy mu jël tax mu né Sénégal dafa bëgg réew mi nekk réew mo xamanteni mom bu nekkee président réew mo xamanteni ñun ñoy momal suñu bop réew mi ñu gérer suñu bop am suñu monnaie bop indépendant suñu ressources naturelle ak minière ak suñu ressources yëpp ñu bayyi di ci am 10 ndax leer na ci bop ñepp sénégalais yi wax nañ ko waxat ko depuis des années et des années et des années depuis 1960 ay image yu leer la Clédor Sène génnee fii ñuy jël pétrole Sénégal diko génné diko yob image yaangi fi bo leen topé sama chaîne YouTube bi ngeen ko gis image yu leer ñu jël pétrole Sénégal diko yob diko yob 1960 Sénégal Cheikh amadou Diop waxoon depuis 59 né Sénégal amna pétrole Senghor ba muy dem dafa dem ba ci Serigne Fallou image yaangi fi né ko Sénégal amna pétrole maa ngi dem Abdou Diouf la fi baye

indi dut ci bop nit yi né waji ni c'est un violeur nit ko bon la yekkatu fitna la du waxkatu deug day wax rek day sos té non ñu koy defee la am ay journalistes am ay nit yo xamné ñom dañ leen ñuy fay pour ñuy tok ci média yi ay média yo xamante dañ leen fay corrompre leen pour ñu tok ci média yi di fen ay journalistes yo xam dañu jang ba am seen diplôme di fen di sos ngeen baal ma ci yenn baat yi pour mëna jaboliser Ousmane Sonko def ko dëmm ba nga xamante ñun dañ koy japp def ko non kon ñu défé woon noonu ni ni li état du Sénégal ak français yi réussiroon ci du Dia réussir ko ci ñu baree bari réussir ko ci Blondé Blondé Diop réussir ko ci ñu baree baree baree bari dañuy jàpp jëmm ji def ko diaboliser ko ñuy wax waxu fisc di wax waxu ressource naturelle minière pétrole gaz zircon uranium fer di wax intérêt Sénégal di wax bind livre expliquer naka lay gouverner naka la bëgg gouverner Sénégal ñoom ñu jàng livre bi ñoom ñu xam ne waa ji yàlla may na ko compétence bi may na ko charisme bi may na ko tur bi ñoom yàlla nattu leen nattu boo xam ne saa bu ñu ko laalee yàlla gën a yëkkati waa ji comme yàlla li mu defal diine l'islam rek saa ko attaqué muy gën a jóg ñu def lu nekk pour diaboliser ko saa bu ñu ko laalee waa ji gën a jóg ñu dem ba xam ne waa ko ñoom seen cuune ñoom ñu dem ba waa ji international ñu jiñ ko viol viol bi gën ko yëkkati gën ko def international léegi ñoom nag ñu ne ñu ñuy siisu quoi ñuy siisu nag léegi nag bëgg réussir benn affaire dañoo daanu état du Sénégal dafa daanu trois fois daanu bu njëkk bi mooy ci côté communication bi mooy dañoo njëkk ne gëmlo nit ñi tak Ousmane Sonko violeur la réussir ñu ko parce que sénégalais yi gëmuñ ko gëmuñ ko c'est que il faut ñu déglu ma tax man samay wax lu ëpp mag ñi lay waxal parce que ma xam naa ne xale ñun dañuy and wacc ci bi ak ñom donc anyway mais dama ni ñu ne Ousmane Sonko violeur la ñu wax ko information bi jall nit ñi gëmuñ ko benen combat bi moy xam communication la d'abord benen bi moy euh wacc mbedd bi sa à dire ñu bëgg ko téye ko loxo nit ñi wacc ci bi bi wat encore combat boobu donc premier bi communication la réussir ñu ko réussiruñ ko deuxième bi faire que ba nit ñi gëm ko ñu Ousmane Sonko nit ñi bi leen terrain bi encore mu des beneen judiciaire juridique combat bi wàllu dossier wàllu tribunal Le dossier, dossier bi dafa am convocation am arrestation Ousmane Sonko ñoom convoqué wuñ ko de a wax naan euh, Ousmane Sonko dafa dossier benn dafa dañ euh, euh, mandat d'arrêt mandat d'arrêt boobu ñu def noonu ah, loolu la ñom ñoko retiré xam lu tax ñu ko que Macky Sall ci bop mo tok ci palais bi après la sortie de Sonko ne nañ arrêté Ousmane Sonko kon ni mu ko nous ci ñu nous baree bari kon ni mu nañ bayyi Bougazeli kon ni mu nañ bayyi kon ni mu bu kenn japp kon ni mu ci palais bi ne mom amna dossier la voix japp leen Ousmane Sonko mom moko wax lan raison wu japp Ousmane Sonko dañ ko viol viol bo xamanteni ñun xam nañu ay fen la ñom ñun que parce que Adji Sarr sax xam ne Adji Sarr ci boppam sax daf leen a nax benn daf leen nax ñaar ñoom ñu ngi communiqué Adji Sarr te Adji Sarr mi ngi leen di enregistré te ñoom xamuñu ne Adji Sarr mi ngi leen di enregistré ay audio de source sûre yoo xamante ni ci Adji Sarr la jóge mu am nit yu mu ko transféré ay ñoom Mamour Diallo di wax ak Adji Sarr di ko di ko Adji Sarr di leen sëpp ba pare enregistré ko ay preuve yu leer léegi nag xam nga lu tax mu demee noonu mooy boo waree def procès defoo ko état deful liggéeyam nekk état voyou nekk ay délinquant nekk ay comploteur léegi procès bi buñ ko defulee niñ ko wara a procès bi day wacc ba fekk yegg ci mbedd bi léegi mbedd bi ño nek di procès bi léegi dossier yi preuve yi ñoo commencé nek ci mbedd bi parce que état du Sénégal respons duñu ay responsable que justice bi dañoo bàyyi pouvoir bi di leen manipuler ba ñoom dematuñ ba mëntuñ contrôler problème mu euh, Ousmane Sonko bi léegi ñun man li tax may def live bi dama bëgg ay détails yo xam dama bëgg man leeral ko ngeen xam ko dañ né Ousmane Sonko mi ngi ko sous contrôle judiciaire dossier bi nga xamni moy dossier bobu dossier Adji Sarr Siri Mohamed Mbaye bobu ñu expliquer non comment se fait-il que Ousmane Sonko rek ak Ndeye Khady Ndiaye kese ñoo ci war a nekk ñoo ci nekk contrôle sous contrôle judiciaire ñoom rek ñoo ci war dem wuy ji tribunal di jaabante